bu Ndakaaru su tribunal bi ne nañu ko dugalaat ci liste électorale yi moom Ousmane Sonko dina mën a collecté ay parrain G5 Sahel amatul ban njeexital lay am ci kaaraange sous région bi ak ñun ñi sax daañu ko waxtaanee ci biir gis-gis xibaaru bitim réew Georges Dethie Diop lañ ci àndal tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne li ci yéene yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. ci kaddu gi ci technique bi ñoo ni ceek Alioune Ba ginnaaw bi ñu leen nuyoo ab expert électoral moo wax kàddu yi li bu dee ni njiiteel partie ba woon di PASTEF dugalaat nañu ko ci liste électorale yi dogal bi nga xamante ni ñu ngi koy xaar 12 décembre bu dee loolu la wax dina mën a dem jëli ay fiche ngir daal di amal ay parrainage am loolu nag dina ko def nag ci lu gaaw dele yi nga xamante ni code électoral moo ko fixé du Seck ñu déglu ko ko El Période de collecte pour le parrainage, c'est du 27 septembre jusqu'au 26 décembre. Donc sur cette période-là, Kounek, moment boulonnaire mën nga ci jug dem collecter say say parrain dafa di nag conseil constitutionnel dafa tijji benn séquence boo xam ni c'est pour mieux réguler arrivé yeeg dépôt yi parce que du ñàkk euh, ñëpp ñëwandoo gestion bi jafe moo tax ñu tijji une période du 11 au 26 pour que nit ñi ñëw mën a déposer seen dossier de candidature bu ñu nag définir ordre de passage bi léegi ku ñëw ñu génne sa dossier génne sa clé say parrainage ak lépp étudiée, étudier passer en revue sa parrain yi nga collecté xol c'est régulier etc et ça c'est du 11 au 26 du processus ou parrainage des collecte des signatures continuer même si à partir du 11 on ouvre la période de dépôt de candidature jusqu'au 26 on a la collecte des signatures continuer même si à partir du 11 on ouvre la période de dépôt de candidature, jusqu'au 26, on a la possibilité de continuer à recueillir les signatures. Donc, si par exemple, s'il est arrivé qu'une décision de justice euh, favorable à Ousmane Sonko, le 12 par exemple, d'arrêter à partir du 12 dès que la décision tombe mu dem collecter les ay nous déposer parce que la date limite en tout cas boo xam ne bii mënuñu koo romb euh, mooy euh, le 26 décembre. boo jàngatee code électoral bi lire ko xool article dérogation mënta nekk Si xoolee sax boo rek le processus électoral en général hein, étapes les étapes se suivent et puis étape bo génn rek da ngay dugg ci beneen am na yoo xam ni ko ciy def rek processus d'enclenchement de succession des différentes étapes. candidat bu parti bii di PUR moom ma nga woon ca Kaolack Aliou Mamadou Dia daal di ne doon déglu askan wi xool seen ñaxtu lan la nee na nag bu sañoon ñu gën a jàppale ñi yëngu ci wàllu mbay mi Aliou Mamadou Dia ak Fatou mbaw donc wax leen en tout cas sunu pilier bu gën a am solo pour suqali sunu réew ak ah, agriculture nag ku ko wax li nga wax càmm gi di nga wax napp gi donc yooyu it di ay secteurs yoo xam ne mooy constituer sunu secteur primaire muy ay secteurs yoo xam ne dañu am. am solo bu agriculture boo xam ne amul chaîne de valeur yu am solo yoo xam ne yu mucc ayib la agriculture boobu du am njariñ parce que da ngay récolter ba pare amoo magasin de stockage amoo yoon yoo jaareele say récolte amoo euh, foo mën a yóbbu li nga xam ne moom ngay jaay euh, euh, exutoire mooy marché bi nga xam ne fa ngay jaayee say produit dara amu ci ah yooyu nag ma jàpp ne pour nga développer agriculture bi il faut que chaîne de valeur yi nga xam ne mooy ànd agriculture nga mën ko taxawal ba nga xam ne béykat bi xam na déjà bala muy récolter fan la ay produit am fan la ay ay récolte am jëm en plus de doxal économie mooy créer ay emploi bu fekkee ne dem nga ba amatoo benn espoir amatoo looy ragal donc lu nekk ci sa xel da koy def moo waral ah xale yi di dugg gaal yi di dem ah ñu jàpp nag ne loolu man li may wax xale yi mooy bu leen dem fenn toog leen fii ci réew parce que Sénégal yéen a ko moom Sénégal seen Sénégal la kenn wu leen donc bu kenn dem fen fi ñu jëm le 25 février incha allah bu ñu yàlla joxee réew mi ñu ànd ak yéen liggéey Sénégal. ak RFM kumpa jeex na. golo dubay ba buñ dundee di campagne bi nga xamante ni mouvement Bawol Debout moo ko amal jamono ji. di wane seen ñàkk ànd ak njëgu kilo gerte gi ñoom nag nit ñi kontaan nañu ndax baykat yu bëri ànd nañu ci ñoom seen campagne boobu leen ñu déglu ci Modou Fall Diouf président mouvement Bawol Debout ak Babacar Diouf. dañuy fësal suñu mbégte ci ndam li nga xamante ni am nañu ko ginnaaw bu ñu lancé campagne bi ñu duppee golo du bay baabu. bi ñu demee Nioro dem Touba dem Louga gis nañu ne ci point de collecte yooyu yëpp amul benn xumbute parce baykat yi. toog nañu seeni kër ak seeni gerte loolu nag bi ko méngalee ak daaw gis nañu ne béykat yi topp nañu li nga xamante ni moom la ñu leen santoon moo ñu téye seeni gerte bañ ko wanteer nguur ndax golo du béy baabun di dunde loolu nag am njeexintal bu baax a baax a ci campagne arachidière ñi leen ciy gën ñaax di leen wax ne foofu rek la ba keroog nguur gi di tijjil frontières yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor seen xaalis yéene ko béykat yi parce que dafa jot béykat jëriñoo ci li nga xamante ni loolu lay béy. Malika nekk fii ci banlieue bu Ndakaaru coowal suuf amati na diggante maire ba fa Momar Talla Gajaga ak ñiy def mbayum dër ñoom nag nee ñu maire ba dafa bëgg a jël lii di vingt hectares yoo xamante ni nee ñu mairie baa ak moom ñoom nag jébbal nañu plainte ci table procureur ñu andi ceeg Aminata Ba. xoolal suuf si lépp dafa dee ndax ci espace nekk ci wetu décharge bu Mbeubeuss moo daal di jur coow diggante yi ak maire bu commune bu Malika baykat yi di tuumal mu Maxtaar Gajaga ne dafa bëgg a loxoom ci terrain di baykat. monsieur le maire ni état da ko jox assiette vingt hectares boo xam ni daa enveloppé wala suñu tool yi te nee na pour faye borom la ñun nag loolu ñun gisuñu benn notification bu ñuy wan ni lii mu wax lu am la te it nangu la toog ak ñun discuter ak ñun. maire bu commune bu Malika Malika mu ngi exploité itam ci anam bu jaarul yoon suufu bërëb bi bu ñu sukkandikoo ba tey jii ci marché yi bu ko tibbee di ko jaay fi ñu toll yow terrain dootul amati léegi lépp yee une de mu ngi ci wetu lag bi lag bi fi yàq na tool yëpp. famille baykat yi daal di booloo ci ab collectif di sàkku nag autorité compétente yi ñu daal di dugal seen loxo ci lu ni mel ngir indi saafara ci coowal suuf ci Malika. du ñu nangu nag suñu tool yi ñu ngi fi nekkoon 1833 34 suñu maam yi ne fii di bay gis ngeen lépp lu xew fii ay yooyu ngeen jàkkoonteel lii la ñuy daj chaque jour dañu bëgg président ñëw régler. wala ministre Amadou Ba ñëw régler problème mu Malika problème mu suufu Malika sonn nan monsieur le maire bi sonal nañu lu ñu nangu nag ñu jox 37 hectares maire mu lekk ko ba mu jeex ñun mu ñëw fi ni borom tool yéen amu leen fi dara loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba. maraîchers yi di xam ne ni déposé nañ ab plainte ci table procureur de la république saisir nañ itam autorité compétente yi Aminata Ba Kër Massar Ray Diouf Thiométia. jërëjëf Aminata Ba maire ba di Momar Talla Gadiaga xamal nañu ni. dina indi ay tontu beneen yoon. nguurug Sénégal amal lu ëpp téeméer ak ñeent fukk ay milliards ci suñuy koppar ñi di société yi nga xamante ni. ñu yor wàllum pétrole président association sénégalaise pétrolier nak sakku ci gouvernement bi mu amal ci nu mu gëna gaawé pexé ci mbir milé jamono jojé direction des hydrocarbures dalal xel yi néna ay waxtaan dina am diggante ministère du pétrole et des énergies ak ministère des finances ngir amal ap solution ci mbir milé ana Rocha bor bi bëri na ak ñen fukki milliards ci suñu koppar yo xamné société yi dañ ko ñak ci jënd ak njaay mi wala ci li nga xam ne noonee la ñu euh, daal euh, euh, charge yi jëm ci dem ak dik bi jëm ci produits pétroliers buñu amul remboursement société pétrolière yi le xeebuñu soulagement fiscal manam nguur gi woyofal len lu jëm ci walu fiscalité Ahmed Guissé moy président association sénégalaise des pétroliers. xëy buñu sañol ñu sañoon ñu mën fay xaalis bi éponger ko bu fay mënu am au moins ñu mën permettre ñun ñi nga xam tamit amel na ñeen Mm, comme ñoom nit ñu amalee ñun amal nañ leen te ñun weer jot ñu war leen fa ñu fay ay taxes fay ay droits douaniers ah yooyu yëpp ñu permettre ñu li ñu amee ñu ko siy dugal dina mën a soulager société yi seen trésorerie ba nga xamee dañ mën a jublu si yeneen parce que xam nga ne téeméeri milliards ak ñeent fukk secteur bi ñu ko yoreel dina ko yëpp situation bi jamono yi dalna na bu yàggee nak mën andi jafé jafé ci walu approvisionnement bi. parce que weer bu ñuy dem montant bi gëna a yokku. té dina dem ba nga à terme tamit mën na impacter approvisionnement mais yaakaar ñu eggul foofu parce que xamné né bon li c'est quelque chose de très sensible activité sensible dans le fonctionnement du pays de manière générale ba xamné xam nañ né des formules seront toujours trouvées. direction des hydrocarbures néna na waxtaan dinañ ko amal doxal ñom ministère du pétrole et des énergies ak ministère des finances ngir Safara. mu approvisionnement bi jamono amal ni livraison planifié semaine dafa am stock boo xam ne mën na yàgg ay fani fan. jërëjëf Anna Rocha jamono jooje miin phosphate bu département Bambey te ñetti gox séq ko mu di euh, Gaawaan Lambaay ak Baba Garage ñi nga xam te ne ñoo fa nekk ci liggéey ci municipalité bi dalal nañ leen groupe ñetti fan ngir former leen ci wàllum fonds minier di initiative bu forum civil. ñoo ne ceeg Babacar tàggat gi tax na ñi nga xam ne ñooy élus ko yi nekk ci ñetti communes yi seq mine bi nekk ci Bambey xam dëgg-dëgg lan moo leen di xaar koppar gi génne ci mine Ndongo Faye moo di meeru Gaawaan. dinañu am point de départ boo xamante bi na dinañu am orientation yoo xam ne mine bi ak ñi ko seq muy. les populations kenn ku ci nekk li nga war a def di nga ko xam su boobaa mine bi li mu war a def dina ko xam ñun itam en tant que les li ñu war a def dinañ ko xam population bi li ñuy xaar ñoom itam dinañ ko xam kon formation bi ci ni ma ko jàngatee loo am solo la. ñi nga xam ne ñoom la mine bi gën a laal nag muy impacte yi. gën a rafetlu formation bi nga xamante ni forum civil indil na leen ko Massayer Ndiaye mooy seen président. donc tey jii nag euh, kontaan nañ ci am nañ ci mbégte parce que formation bu am solo la ñu assister dans la mesure où lu ci bëree leer na ci suñu bopp comme leer na ci suñu bopp ànd bi dina gën a mën a mën a neex daal. coordonnateur de structures forum civil Mame Latir Fall ne li ko gën neex ci mbir mi mooy ñetti communes yi ñu boole seen doole mën a xàccandoo dóorandoo. pour ñu mën a défendre seen intérêt ñi ñu fal nag bu seen xam-xam yoo ko ak ñun a waa mine bi pour mën a défendre seen i am na yu bari fi dañ ko bind tax mais ñoom dañ ko jëmmal parce bu ñëwee suba gis fi ñetti maire yi taxaw te boo gisee nga xam ni macha allah seen demalante rafet na ci njeexteel formation bi ñu créé benn commission boo xam ne nii day topp lépp luy engagement yoo xam ne nii jëloon nañ ci wàllu xaalis bi nga xam ne moom mooy génnee ci mine bi Bombay RFM Babacar Diouf. jërëjëf Babacar Diouf benn waxtu tegal na fukki simili ak pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. élection représentativité yi ñeel centrale syndicale fas yéene am fukki fan ak ñaar ci weer wii ñu ne ca Thiès CNTS FC nee na jamono ji nag ay rëq-rëq yu metti moo fa am ñoo ne ceeg Cheikh Anta Diop. daanaka ay fan la des ci élection représentativité centrale syndicale yi ñu jàpp ko fukki fan ak ñaar ci weeru décembre bi bu syndicat national des travailleurs yi yëngu ci wàllu gaz ak pétrole bokk ci CNTS FC gis ne élection yi dafa mel ni dañ ko soofantal amuñu benn publicité bu ñu ci def Alioune kan bokk ci CNTS FC. mi ñuy déplorer aussi manquement yi am aussi ci cartographie électorale maanaam ñu defee pàcc pàccu bërëbu votekaay tey waa jee xëy na ñoom amuñu problème boobu ndax ñoom fi ñu voté soriwul mais boo jëlee d'une manière globale euh, département Thiès dañu jël entrée par les communes ndaxte boo jëlee la zone de Kër Massamba Gueye ku xam Thiès mu war a dem voté ji Fandène ku xam Thiès di nga xamante ne diggante boobu sori na so approche communale bi ñu jël mm-hmm. moo baaxul ratio bi moom mooy téeméeru liggéeykat fu ñu am rek war na fa am bureau war na fa am kon loolu waroon na mën a tax ñu jegal leen lieu de vote ñoom ñi sax nee nañ ndéem nag élection yi dañ leen a ñàkkal fayda waaye nag gis nañ ne syndicat yi am na liggéey bu am solo boo xamante ne ñu ngi koy def ci Sénégal rawatina jàppale liggéeykat yi. ndax enjeu yi dafa rëy. ndax élection yi mooy tax ñu tànn centrale yi nga xamante ne ñooy toog ci taabalu waxtaanu nguur gi. pour mën a décider ëllëg. le sort des travailleurs en même tamit ñu mën leen toogal ci yenn kuréel yi état yi kuréel sociale comme caisse de sécurité sociale bu ñu mën leen fa toogal il faut ñu bokk ci ñi jiitu bu ñu mën leen toogal aussi au niveau de l'IPRES il faut ñu bokk ci ñi jiitu ndaje bi nag tax na secrétaire général adjoint bi nga xamante ne moom moo jiite syndicat yi ñu yëngu ci wàllu pétrole ak gaz nee na Sénégal ci ay weer dinañ gis pétrole bu bari te pétrole bi dina tax Sénégal gën a am yokkute RFM Thiès Cheikh Anta Diop jërëjëf Cheikh Anta ca Fatick ñoom bureau de vote jëlee nañ ko ci ñaar yóbbu ko ci juróom-benn kon nag mun nañu voté foofe ci arrondissement yu bëri préfet ba ak collectif central syndicat yi ñoo déggoo ci loole ñoo déglu ci El Hadj Dramé préfet bu Fatick ci micro Aminata yi tënk nañu ci 18 euh, bureaux de vote répartis en 6 lieux de vote arrondissement yi bu nekk dafa am lieu de vote ba mu des arrondissement bu Fimela parce que Diofior dafa jege Fimela Diofior également am ay communes yu ko wër donc Diofior ak commune yu ko wër euh, Fimela bokk ci Palmarin Djilas Loul Sessène ak moom ci boppam euh, nga xam ne mooy Dallo ñu defal lieu de vote ak commune bu ak arrondissement bu Niakhar moom it mu jël ay commune am arrondissement bu jaxaw jël commune commune arrondissement bu Diap base bi CRNP CRDBS bi nga xam ne mooy defar autoroute à péage Mbour Fatick Kaolack aussi également également euh, mu jël ay électeurs am commune bu Fatick momit également jël ay électeurs am ben benn lieu de vote donc lool moy moy madame euh, ñëwaat ci six lieu de vote yi nga xamné mom lañu la ñu fas yéene incha tele yàlla def nak commune bu nek xam nañ léegi ñaata électeurs la am xam nañu également ñaata électeur le département bi am mu ñëwaat ci lañu ñu moy muy huit électeurs donc déjà fofu euh, mën naa li doon nduru incompréhension wala inquiétude amatul dossier bis bi la ñuy waxtaanee mooy discours haine ci bërëbu tasukaay xibaar yi yenn njeexital la am ci jàmm ji nga xamante ni moo am ci réew mi nan la ñuy def ba mën ko dakkal faw ñu engagé responsabilité média yi am déet di dossier woo xamante ni Seydou Nourou Ba moo ko defar bi ñuy amal ab waxtaan ca EJICOM jëm ci wàllum jàmm ak kaaraange ñu déglu ko. ay kaddu naqar wala sax di boddi discours de haine nees ko mën a docteur Momar Cham, expert consultant ci communication JT, école hautes études information communication. maanaam discours bo xamné day woté fitna wala discours bo xamné day ngagn nit wala ben groupe nit parce que dañu nek jullit wala dañu nek catholique wala dañu nek Euh, des politiciens yoo xam ne dañu nekk ci benn parti wala dañu nekk ay euh, des personnes yoo ay nit yoo xam ne dañu bokk ci seen benn askan. démb yooyu la kàddu jur na njombe Rwanda xam na ci dara Barka Ba journaliste consultant. jibaloon ay kàddu yu ñagas euh, jëmale ko ci minorité tutsi bi fa nekkoon te gis nañ discours boobu lan la fa indi ci jéye bu toll ni li ñuy wax génocide. ba tey sax am na dëkk yoo xam ne ñu ngi koy dund Momar Thiam. gis nañ ko Pakistan gis nañ ko Inde entre li ñuy wax Inde yi ak euh, jullit yi tey gis nañ ko ce genre discours boobu ci ci li xew entre Israël ak Hamas de sorte que li nga xam ne sax nit ñi moom la ñu war a wax waxuñu ko parce que euh, genre discours yooyu dafa jël le pas sur le reste maanaam dafa jéggi dayo ba ku nekk tey ji da ngay toog doo xam léegi dëgg ji fu mu féete. Barka ne faw ñu jàng ci li nga xam ne weesu na démb di moytu yenn ci ay kaddu laata njombe di am. moo tax it ñu mu nekk ay discours yoo xam ne yu ñu war a moytu la. surtout ci jamono yi nga xam ne ci réseau sociaux yi. Euh, waxambaane bu nekk mun na jóg daal di euh, jibal ay kaddu yoo xam ne. luy yëngal euh, stabilité dëkk la. su ko fekkee da ko jël. Euh, di ko jëmale ci benn groupe nit euh, pour ay mbiru waaso ay mbiru diine loolu euh, ay kaddu la yoo xam ne yu yee na la yu ñu war a moytu la Assane Samb taskatu xibaar la xelam màcc wàllu politique dafa gis ne média yi foofu ñu joué seeni xool lu ko mooy seeni responsabilité mu ngi si biir xam nga olof day wax ne ki wax waxul ki jottali moo wax waa kon nag day moytu di jottali lépp loo xamante ni day jëm ci loolu Euh, maanaam di ñi nit ba pare di ko ci singale ca biir ŋàññi ba euh, pour que nit ñi di ko di ko di ko di ko ràññee ràññee boo xam ci anam boo xam ne rafetul donc médias yi dañ ci war a bàyyi xel aussi bien patron de presse yi que si yi donc médias yi dañ ci war a bàyyi xel aussi bien patron de presse yi que journaliste yi ñoom ñu am responsabilité lépp lu jëm ci loolu rek ñu koy moytu discours u en walay kàddu yu boddi fu ñu war a mun a jaar ba daal di ko ñoŋal daal di ko réguler ndax rajo yeeg télé yi buñ ko maîtriser yeneen di ay réseaux sociaux na faa gën a metti ndax nañu joxe xibaar ak a gaaw lool li yëpp di ay laaj xam ne indi ci ay tontu dina jafe lool. jërëjëf Seydou Nourou Ba gën a ñoŋal taxawaayu organisation yi nga xam te ne ñuy xeex ak sàmm ak doomu aadama yi. lol le président Macky Sall daal di bëgg ba daal dina sax dina am ay réformes juridiques euh, mu wax li ni mel démb ci ndajem conseil des ministres ñi nga xam te ñoo ci yëngu nak nee ñom nopi nañu ngir dal gën ñëngal seen liggéey buñu leen Sénégal dafa war a méngoog bépp banqaas buy xeex ak ak yelleefu doomu aadama bi ci àdduna bi ba noonee nag faw ñu daal di koy won yoon wi ak ay réforme yu yees te méngoo ak jamono El Hadji Momar Samb di ministre bi yore bonne gouvernance ak ak ak yelleefu doomu aadama yi. entre 2007 2011 jàpp 2012 moom ay tolof tolof ba xarkanamam fi ñu ko tegoon ci worma ñu xaw ko xawi tuuti wàccee ko statut bi mu amoon statut A bokk ci réew yi gën a ràññeeku ñu wàccee ko ci statut B li xam ne moom la président jël comme dogal day may suñu kuréel googu mën a dellu fa mu ne woon démb maanaam bokk ci yi ñu gën a ràññee ci àdduna bi li xam ne moo doon tolof tolof yëpp gouvernement bi daf koy faj ngir fànq ko ngir kuréel googu am taxawaay bu wér bu méngoo ak xar kanamu Sénégal ci àdduna bi. mu bari ay poñ yoo xamante ne nag dañ ko war a liggéey bu baax a baax waaye moyens yi mu laaj tegal nañ leen ko El Hadj Momar Samb. te fii ñu war a lële yëpp mooy fépp foo xamee ne ah.

le président de la république Bilé, lee forum du justiciable Wakoto bu daje Baba comité sénégalais des droits de l'homme damay fàttali ni première institution indépendante en matière de droits de l'homme au Sénégal également le comité moi, le point focal euh, des instances internationales yi à ci mbirum donc dafa am solo euh, le comité sénégalais des droits de l'homme nous renforce du point de vue institutionnel du point de vue budgétaire yoko koppar gi jox ko ay moyens mais aussi cadre juridique bi nga xam ne yor na ñu delluwaat ci statut A boobu ñu nekkoon nga xam ne dafay gën a jëmal état du Sénégal en matière de droits de l'homme il va falloir que ñu gën ko renforcer buñ ci liggéeyee dinañ gën a mën a euh, euh, jëlaat place bi nga xam ne jëlal nañ ko. kon noonu mu doon ab cadre juridique bu yees boo xamante ne dafa fas yéene suqali bu baax lépp luy activité boo xamante ne dafay jëmale xeex ak yelef doomu aadama yi ci àdduna bi yépp. jërëjëf Nafisatou Sila campagne ces jours d'activisme xam ngeen ni fukki fan ci weer yu ñu ne lay jeex fële ca Fatick nag ministère de la femme. ak waa famille dajale na fa soxna yi ngir euh, defal leen benn formation ñoom di ci Aminata Goudiaby ci carrière commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle nak Kodou Kamara jotna traité ak ay services am yu bëri yu jëm ci walu violence ñu violence. jigéen ni mu am ci sax yu metti procédure yi ma gëna suivre nak c'est dans les cadres des missions parce que là j'ai beaucoup encadré euh, euh, la police haute ndax ne def fa dix ans donc je n'ai fait que les violences pré post conflit violence post conflit ak violence en temps de conflit mo gëna metti que violence en temps de paix ennemi bi dañuy bëgg euh, violenter les femmes pour que def ko arme de guerre. expérience bobu mu am mom Kodou Kamara. Camara tey à la retraite fi mu consultante la jëm ci wàllu genre et violence basée sur le genre paix et sécurité moom nak fi ni, ne nii mën naa former ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo ay waay der nga xam rôle bi joué ci wàllu enquête saa violence amee rôle bu kenn dootul naatable la. parce que fi, c'est un premier c'est une première formation parce que bi évaluer on a vu que amul kenn ku ci def formation genre xam nga loolu tâche bu difficile la dimbali nit ki nga hamni ne dañ ko méttital dañ ko sonal dafa dem ba traumatisé, nga bëgg ko wax loo loolu nga liggéey la te nga bëgg ko jaarale yoon ba kooku du la fenal lu du wax la ni mu demee ba nga xam ne di nga ci am élément yoo xam ne boo ko yóbbu parquet yaakaar naa euh, violence yi ak viol yi dina wàññeeku parce que loolu la ñuy ñoom dañuy recevoir les victimes de violence donc dañu war a am ay cours de formation. ministère de la femme et de la famille ñoom ñoo initié session de formation yu ni mel ànd ci ak Enabel Ndeye Khady Diouf moom mooy directrice régionale de la famille ci Fatick. nit ki nga xamante ne dafa subir violence surtout sexuelle ak forme bu mu mënti nekk ñëw ci yow te prise en charge bi jaarul yoon kon mën naa am kooku lim doon xaar ak lan la bëggoon ak protection bi mu war a am ngay laaj. agence belge de développement nag mi ngi tabax ci Fatick fi mu ne nii ab centre boo xam ne li ko tax a jóg rek mooy di jël en charge ñi nga xam ne ñoom la ñu teg ci seen kaw yenn xeeti violence yi nata Goudia bi Fatick RFM. ca Elinkine gox la wu nekk ca Casamance nappkat ya fa euh, defal nañ leen ñoom it ab formation ngir ñu xam bu ñu demee géej. bu seen naataangoo nappkat daal di def malaise nan la ñuy def ba mun ko dimbali Lamine Ba. nappkat yi nangu nañ ne am na seen xarit yu baree bari yi nga xam ne nag amee nañ accident ci biir géej bi mënoon nañ leen a sauvé waaye dañoo ñàkk seen bàkkan bokk na ci li ko gën a waral xeetu sauvetage bi nga xam ne dañ leen ko doon indil te méngoowul ak anam yi nga xam ne noonu la war a tëddee Moussa Toub moom moo jiite CLPA bu Elinkina. nit day noyo rek nga ñëw euh, jël ko rek andi si kaw ñii di bi ñii di def lii wala nit damma wala mu am hémorragie wala leneen parce que ñu si bare xëy na nit ki mën na am problème si géej mais boo ko génnee sax xëy na yow yaa koy rey yow yaa koy gaañ fekk du noonu c'est que ni ñu daan doxalee du noonu ki ñu mujjee saraxal démb rek lañ ko saraxal léegi nag loolu jafe-jafe la bi nga xam ne nag féete na ginnaaw ndaxte direction de surveillance de pêches tàggat na leen ci wàllu woowulee géej gi boo nekkee bu nit gaañoo bu nit dammee bu nit fattee bu nit lépp dañu ko jàngal tey mooy bas yi nekkee ci biir géej gi ni ngay naviguer bato yi ni nga leen di moytoo bato buy ñëw nii lay jaar bato nii lay mel loolu yëpp tey muy xam-xam boo xamante ni tey ñun tey dañu waroon fay alal ju bari tey pour ñu jàngal ñu ñi nga xam ne nag sant nañ formation bi tàggat nañ leen ci li weesu li nga xam nag moo di geste premier secours Mamadou Lamine Diop moom mooy chef de la division sécurité des pêcheurs artisanaux mais aussi tàggat leen ci réglementation ba nga xam ne suñu demee géej mën a xam lan moo méngoo ak yoon lan moo méngoowul ak yoon mais aussi euh, ku ne xam na ni Euh, gaal yu bare bëri dañuy tàkki géej ñu xam na lañ koy fayee biir brigade bi nag liñ ci namm nag mooy fexe ba képp nga xam ne bokk nga ci biir nga am taxawaay bi nga xam ne war na ko ngir mën a sauver ay bakkan Abdoulaye Diédhiou moom mooy chef service régional pêche de surveillance bu Ziguinchor brigade boobu dafa am ay membres yu ko constitué donc tey dañuy yokk seen xam-xam ngir au moins ñu mën a liggéey ci ay liggéey yu liggéey bu mucc ayib liggéey bu jaar yoon il faut ñu dang am na technique yoo xam ne moom la ñuy au moins pour pour pour pour ñu ñu ji nag dañ gën a lii di tàggat bi ngir ñu mëna a di jappalé ñi nga xamné ñi ngay amé accident ci biir géej bi Lamine Ba Médias

Abdallah Ndour. Burkina Faso na am nañ topi sen constitution lañu bëgg nak moy fexé langue ya laq ci dëkk ba doon langue officielle comme moré djoula bambara wala peul projet de loi bi nak war nañ ko yobbu ci assemblée nationale dina loolu tamit li nga xamné moy haute cour de justice danañ ko supprimer ci projet de loi gogé haute cour de justice n'ak mo daan atté personnalité politique ak médiateur faso yi nga xamante ñoo nekk ci Burkina Faso légui nak haute cour de justice la daan def danañ ko yobbu ci chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou li médiateur du Faso ak conseil économique et social d'Aninko ko remplacé remplacer conseil national des communautés conseil national de communauté Gogé, chef religieux coutumier ak communauté Nyom Nyokai Lambo. Nyom Nak, nag danañ Legiti décision la ñuy ci lu conseil constitutionnel danañ ko yaatal ba ñi dunyu magistrat danañ bokk conseil supérieur de la magistrature Lata Burkina Faso ko réew Mali bokk na ci réew yu njëkk a seen constitution ne langue français moom dootul doonati seen langue officielle. George ñu dem ca Guinée Bissau président ba Umaru Sissoco Embaló nee na opposition ba. la fa amoon ay bis gée ñu génn ñoom ñoo ko def. mu ne loole sax de ko jàppee ni tentative de coup d'état Omar Sissoko Embalo seqoon waxtaan ak euh, sunu naataangooy ca France 24 euh, euh, mu ne nag ku jegi moo nekk ci ginnaaw trouble yooyu nga xamante ne amoon nañu ay bés gi ñu weesu ay force spéciale ak i garde nationale ba doon jàppante gannaaw bi garde nationale ba demoon ca makkaanu police judiciaire ngir jël fa ay ñaari. kilifa ya nga xamante ne ñu ngi woon ca gardaaw yi ndax euh, benn mbir ma nga xamante ne dañ jàpp seen loxo génnu ca euh, ñi nga xamante nag ñoo di l'armée bi tey sax fësal nañ ay ganaay ak itam euh, leneen ñoo ñooñee defoon mbir ma daal ganaay yooyu la yoroon ñu ne itam jàpp nañ ci ñu bëri. lu jëm ci euh, wàllum coup d'état ba ca Niger euh, cour de justice bu euh, CEDEAO moom nag àdduna tey ca Abuja ca daan ya nga xamante ne teg nañ ko ci ndodduk Niger CEDEAO jël daan yu teg teg daan yooyu gannaaw coup d'état bi amoon ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet cour ba nguuruk Niger jamono ji ak juróom yeneen nañ nit personne physique wala personne morale ñoom daal dañu neewoon ne daanuk CEDEAO yi jaaruñu yoon waaye cour de justice de la CEDEAO dafa jàpp ne euh, loole daal amut Bon, tax sax ba mu gantal yoyé requête ndax ci seeni gis-gis ñom juge yooyu nee état bu Niger amul qualité saisir cour de justice de la cdao e ndax juge dañoo japp né requête yooyu gantal na leen ñi représenté jamono ji euh, nguuruk Niger di ay euh, militaire amuñu sañ-sañ wala bok cdao e reconnaître leen ni itam protocole ya nga xamantene Niger signé na ko reconnaître leen ci Grande-Bretagne mon ministre de l'immigration mon tekki na ndombal tankam euh, Robert Jenrick moom dafa démissionné ndax euh, féewloo gi nga xamante ne am na ko ci euh, politique ba nga xamante ne moo di euh, jëm ci yóbbu ay migrants ci Rwanda Rokhaya Samb Robert Gendrick di direk ab partisan bu fare ci ligne dure bi nga xam ne dafa taxaw ngir xeex lépp lu jëm ci dugg si bu teguwul ci yoon ñeel migrant yooyu lee daal di nay nag fësal ab démission wam gannaaw ba ñu fësalee projet de loi boobu lee nga xam ne mooy may ñu mën a envoyé yooyu les migrants ca Rwanda mu xamle ko nag ci yile kàddu ne rek mënuma wéy di des ci bile post gannaaw ba ma xamee ne am naa wute bu yaatu jëm rek ci wàllu politique migratoire yi nga xam ne kilifa yi ñu ngi koy eh, ko xamle mu doon nag ab àndandoo bu yàgg lool ñeel kile di Rishi Sunak nga xamante ni boobule projet nag li ko tax a jóg mooy rek may ñu daal di dindi yooyu les migrants foofale ca Kigali élimaanu ko jawrin yi daal di koy nag jot a tontu ci ab lettre bu mu fësal xamle ne taxawaay bi le bett na leen lool te rek day fësal ay réero yu am ci seen diggante mu doon ab démission boo xam ne mi ngi am ci jamono joo xam ne conservateur yi fare ca droite bu am solo ñel convention internationale yooyu le jëm rek ci projet de loi boobule la koy mëna jëmal ci réwma mu mel nak li ni mel bu rek dinañ génné réw ko Kigali réw Rwanda jotna defuk artu ci hamle ji xamlé rek né limu mu jëm rek ci retrait bilatéral bu migrant yooyu le dox ci ak Royaume-Uni mën na génn jamono june bu féké né rek Londres jotul respecter li nga xamante ni tënk droit international yi. ca Amérique États-Unis ni ab fusillade jëmale ko ci ab euh, campus euh, fële ca Las Vegas euh, jëmale ko ci ab université ñeent nit ñoo ci ñàkk seeni bakkan kenn ki nga xamante ni jàpp nañ moo def lu ni mel sax police faat na ko police ci boppam nag bañ a xamle identité wu agresseur boobee joxewul sax ni góor la jigéen la am na yeneen xibaar itam yi nga xamante ne bañ nañ ko joxe jëm ci wàllu euh, victime euh, yooye seen lëkkaloo ak université ba guerre ba ca Proche-Orient euh, jàppante yi di wéy ca bande de Gaza l'armée bu Israël ne jamono ji teg loxo ci diwaan gii di Khan Younes dafa wër nag Yahya Sinour mag ci kilifa yi waa Hamas mi ñu jàpp ne moom daal moom moo nekkoon ci diggug cong nga nga xamante ne moo amoon juróom-ñaari fan ci weeru tàggat yaram ñu ànd ak Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fama Dione. coupe du monde handball ci wàllum soxna yi Sénégal bëggaat na exploit. waaw gannaaw ba ñu qualifié ci nga xamante ni moo di euh, deuxième tour bi ñu tuddee ko tour euh, principal bi Sénégal nag tey jii dana soobu ci geneen tournoi ngir mën a qualifié ci li nga xamante ni moo di euh, quart de tey jii nag ci ngoon seen digg ak ñii di waa Hongrie lay daal di doon ci bu 17h jotee. Euh, jàppale ne nag euh, bu loolu weesoo yi tamit euh, Sénégal dana am yeneen équipe yi nga xamante ne daal dana tas ñoom moo di Cameroun ak ñi di waa Monténégro dañ ciy daal di déglu Seydou Diouf moom mi nga xam te moom moo jiite fédération sénégalaise bu handball moom mi nga xam te sax moo sookee lu ni mel gannaaw bu ñu ko denkee li nga xam moo di handball bi amal si ab jéego yu am solo moom nag jot nañoo ko moom tey jii suba gi te xibaar bi moo di sax moom Seydou Diouf mi ngi fii nii ci Dakar bu jéegul ko. dañ ko liggéey dans la durée parce que boo xoolee man bi may doog a yegg si ci bopp fédération handball à la limite ñun amatuñu woon sax compétition internationale loolu souvent dañ koy fàtte dañuy fàtte ne 2010 Sénégal bokkatul woon sax ci compétition continentale ndax dañu suspendron bi ñu yeggsee ñu liggéey ba suspension boobu dañ ñu waroon mën a liggéey nag ci ñaari fana ndax handball dafa am góor ñi am jigéen ñi ci njëlbeen gi ñu jël orientation ci góor ñi parce que boobu amoon nañ potentiel yu am solo yu nekk notamment événement ci àdduna bi ñu fexe ba ñoo ñu jëli leen man jël naa sama dal demoon fu bëri seeti ay ay joueurs pour que ñu ñëw liggéey ci équipe nationale ñu bëri fekk ma ci euh, ba ñu amoon équipe nationale boo xam ne 2012 bi ñu njëkk a dem Coupe d'Afrique fële ca raba Sénégal gannaaw ñeenti équipe yi nga xam ne ñoo nekk au nord de l'Afrique euh, les pays maghrébins Sénégal moo qualifié woon cinquième moo jëloon cinquième ci ci booba booba jamono xale yu jigéen yi tey ci même Coupe d'Afrique bi bokkoon nañ ci waaye bi lañ nekkoon waaye diggante bi nag ñu xool ne mënuñu liggéeyandoo ci ñaari tànk yëpp parce que dina diis ci état bi diis ci fédération bi donc il faut que ñu xool fan lañ ëpp chance bi ñu jàngatee ba xam ne ci jigéen ñi lañ ëpp chance parce que xooloon nañ ne kat digga ci góor ñi boo jëlee Algérie nga jël euh, Tunisie nga jël Égypte foofu pour nga am fa médaille de bronze bokk ci ñett ñi dina jafeñ trop trop trop trop parce que xamoon nañ aussi potentiel bi ñu amoon naam amoon nañ ay joueurs yuy performé mais nag seen niveau par rapport ak ak ñetti réew yooyu organisation bi ñu am kiiwul woon CAF Awards yi la ñuy waxtaanee Sénégal euh, am na ci taxawaay. waaw am na ci taxawaay gu am solo ndax bokk na ci tableau yi nga xamante ne ñoom danañ ci xëcc ngir mën ci jël ab raaya ci lu jëm nag ci titre meilleur sélectionneur euh, de l' année Aliou Cissé ma nga ca dana bokk ak course beeg ki nga xam moo di Walid Regragui di sélectionneur bu équipe nationale bu Maroc ak itam doomu Algérie bi di Abdelhak Ben Chika doonoon ni jamono entraîneur bu USM Alger laata muy euh, wutali équipe foofule ca Tanzanie leneen li nga xam ne mën nañ ko wax itam il est champion d'Afrique euh, il nga xam le titre meilleure euh, sélection de l'année Sénégal euh, ma nga ca titre meilleure sélection de l'année dina ko xëccook itam ak euh, Maroc ak itam ñi nga xam te ni ñoo di waa euh, Gambie am itam yeneen doomu Sénégal yi yëngu ci titre meilleur jeune joueur moo di Mamadou Lamine moo di Lamine Camara ak itam Amara Diouf waaye dina ko xëccook itam doomu Maroc bi di Essal Souli ci lu jëm nag ci Ballon d'Or bi Mohamed Salah moo koy xëccook Achraf Hakimi ak itam doomu Nigéria bi di Victor Osimhen ñoom nag dañ daal di wutu ki nga xam te moo di sa Mané yëf yi nag danañ ko daal di siiwal fan ak benn ci weeru décembre ca Marrakech foofu foofule eh, ca Maroc bu loolu soo soxna Fama ñu daal di eh, waxtaanee lii du UFOA di kuréel bi nga xam ni moom moo eh, ŋànk réew yi nga xam ni daal ñoom ñoo nekk fii nii ci Afrique sowu jant di lii du UFOA seetlu gi nag moo di ñu ngay ràññeeku maanaam réew yi nga xam te ni ñoo ko daal di seq ñu ngay ràññeeku ci wàllu football bi nga xam te ni ci la ñuy daal di yëngu léegi nag la ñu bëgg moo di fexe ba ñangal ko ngir bu ko daal defee Coupe d'Afrique bii di ñëw ci wàllu góor ñeeg jigéen ñi zone bi mën cee am loolu nag moo di kaddu Mame Pathé Gaye di doomu Sénégal nekkoon ci biir fédération sénégalaise bu football ba paré di diriger kuréel googu tay ji suba gi soxna Soda Thiam dal dina sék waxtan ak moom.

Banjul la war a nekk ci loolu la ñu nekk di liggéey pour taxawal bureau yi Banjul. moom ancien directeur technique financier bu fédération sénégalaise de football am na mbégte gis ñaari équipe yu zone am yu qualifié jëm ci kan ñeel jigéen ñi. ñu nekk ñaari équipe yi nga xam ne am nañu yaakaar trop ci ñoom yaakaar nañ ne mën nañ ñoo yóbbu fu sore euh, pourquoi pas ñu yóbbu ñu final ñu am final Sénégal Mali mu nekk 100 pour cent zone UFOA A. directeur exécutif bu UFOA A ay équipe bu zone am def nañ ko loolu day wane rek ni fédération yi ñoo def liggéey bu mucc ayib. Eh, zone bi am nañ ci juróom-ñaari équipe yu qualifié si juróom-ñeent kon ñaari équipe rek ñoo qualifié wul loolu day wane rek ne fédération yi am na liggéey bu mucc ayib bu ñuy def di préparer seen équipe yi ñu nekk ci ay performance yu mucc ayib eh, te am na ñu yaakaar ne Coupe d'Afrique bi ñu jëm mën nañu am ñeent ñiy mujj muy carré bi ñu am fa ñeenti équipe zone bi. Dafoe moom ma Mapate Gueye bëgg-bëggam bokk na ci gis kan Côte d'Ivoire gi ñu jëm équipe bu am jël ko. foot ci Europe la ñuy ak championnat bu Angleterre tay jii la ñoo fas yéene kon bokk jeexal seen quinzième journée ñaari jonganté moy daldi am bu njëkk bi 19h30 ci heure Dakar diggante Everton ak Newcastle 20h15 Tottenham dana tass ñi do West Ham United fàttali na googu le championnat di championnat bu Angleterre Arsenal mom mo fété ci place bu njëkk bi daldi rawé rawee ñaari pagne Liverpool mi et si ñaari place bi rawee le toll ak juróom-benn Manchester City mom nga xamante modi équipe champion en titre ñu daldi ko jéxalé ak mbirum ki di Paul Pogba mom nga xamante ni daldi woon contrôlé positif ci lu jëm ci wàllum dopage ci ay xibaar yi nga xamante ni daal mu nga bawoo ci presse italienne bi ñu ngay xam ki nga xamante ni Pogba bu moyul ab ñeenti at tam at kon bokk dana ko toog du football loolu nag daanaka mën nañ ko tuddee fin de carrière pour ki nga xamante ni Pogba ndax su boobaa dana am lu tollook 37 ans ñoom nag fi toll nii ñu ngay def seen kéem kattan ngir fexe kon bokk nu a

jërë ngeen jëf borom république des valeurs di Thierno Alassane Sall moo xëy moomee xët mu njëkk l'observateur waxtaan yaatu la fa xëy séeq ak journal groupe Futur Média bi ca waxtaan wa ma nga fay wax ne xaalis yàq na politique bi rey na gor ak ngore gi newoon ci nit ñi mu ne li ñuy gis ci réew mi bu ñuy wàcc élection mu di ay wata yu bakkane ay katkaate ki wit wit yu na jasar ci dëkk bi te kenn xamul fu ñu jógee Thierno Alassane Sall nee na loolee